moo tax ma ñëwoon fi jox leen financement tey ma dellusiwaat fii di wàññi ndax euh, léget gi cinq cent mille bi ñu fi indi woon gaa ñu ngi koy liggéey def naa situation ba dafa yokku na waaye nag dañ ne ku dolli cere dolli ñeex ndax nag euh, bu nit ñi dee yokku ñun tamit dañoo war a yokku euh, yokk boobu ñuy yokk nag dañ leen di financé ñu ber ay léget yu bees tuuneen laa jóge léegi ñoom def nañ leen léget ndee la tamit ñu bëgg fële ca kaw dinañ la jox léget boo xam danga koy commencé yaag ñu nga mën a àndal marem baabu tamit ci côté bi dinañ ko jox moom tamit mu commencé légetam ak moom ñoom mën a àndal mais nag du tee fu ñu toogee ak diir man dinaa ñëw gëstu ndax nag euh, lu ñëpp bokk dañ koy dañ koy pencoo ndax tamit maa jiitu maa war a gérer léget gi maa war a lekk ndax def naa fi léget yu bari 4 millions laa commencé woon tey léget yooyu ñu ngi ci juróom-ñetti millions ak téeméeri junni ak yéen kon xam nga jigéen ñi ñoo jara wóolu la ma waxoon léegi nag jox indi woon naa fi légetu téeméeri junni am na ñu ca bokkoon mais pour mu gën a woyof moo tax ma génne ndee la mu dem côté bole dana am ñu wàññi foofu marem tamit ak ñoom euh, kii gay danañ mën a dem côté bole ñoom it mën a sos foofa seen leget ba nga xamante ne nii daal liggéey bi dina yomb ku nekk dana ci mën a gis boppam ñu leen di ñaanal nag yàlla na ngeen ko muurloo ndax njëlbeen la nag dañuy ñu dolli su doxul tamit duñ leen wax dara waaye duñ fa jaaraat te danañ jox seen ay morom ngeen di ko dégg te loolu jigéen bu ko moromam ñu ngi leen di sant di leen am yaakaar ci yéen yàlla bu yàlla tas yaakaar ndax nag yaakaar na jigéen ñi yaakaar na xale yi ndax ku mën a dindi juróom-ñetti million yu teg di ko jox say jigéen dese la tool leen dara daanu nag dajul suuf ndax nawet sax buy taw dana commencé kaasam ba muy àgg suuf waaye du tawandoo fépp ñu gisee ko noonu rek ngeen liggéey ko liggéey bu rafet dërëm sax mën nga ko liggéey bu déwénee mu mu jural na lu mot junni waaye nag ca ca liggéey ba la ndax wax ne màcc nu màngo dana tax màngo naqari dara dara di liggéey ba kenn du ko bëgg waaye da nga yore tuuti di ko liggéey ba ñëpp moo tax nag ndeel a ci gàttal comme waataa ma ngeen koy xaar fa laay tëje ji leget yi ma leen jox mooy juróom ñaar fukki leget ak juróom benn yoo xam ne nii ci biir semaine bi joxe naa si juróomi million bu séddale ko lépp dem ci jigéen ñi ñeent bu da ngeen a juróom ma jox leen seen enveloppe. waaw madame la maire man aussi comme na ma ko defoon rek xam nga xam nga moom mara kii monsieur le maire li muy def nii mënu la koy defal parce que lii moom la bu ñëwee di ñu ko defalee ñun aussi vraiment dañ ko ci sant bu baax a baax monsieur le maire moom duñ noppee di ko sant waaw waxoon naa ko duñ noppee di ko sant ci li muy jàppale baax kooku nag lam ma waxoon moom fu mu fu mu naanee doom. feebar nga naan fa doom. voilà donc man loolu ci laa nekk tax comme ni ma ko defee coono jàppale naa leen. jàppale wu ma leen sax monsieur le maire laa jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom lay def jox naa leen vingt cinq mille yéen aussi yeneen ñaari groupement yi kenn ku jox vingt cinq wax ne xam ne loolu aussi monsieur le maire parce que ñu tey bu ñu conseil départemental yàlla ak moom loolu wax dëgg yàlla dama ko seede laa ko ma tool dama koy sama mag sama lépp la réeroo wuñ ci dara nag waaw bi ñu kon ku mel noonu bu amee ci lépp lu muy def dañ caa war a am donc ñun ci dinaa borom la maire ngay nekk aussi maa koy sant bu baax les après dina xam ne tax ma ko leen ko di jox. donc ñu ngi doon Paxa Kaw Paxa Kaw moo nekk ci vingt cinq mille. Paxa Kaw fanweeri junni ak juróom. Marème tamit ñu Paxa fanweeri junni ak juróom. ah yéen Paxa toj na. Ah, baax na baax na. day taxaw day taxaw ay. teel a. Thank you. hani ki bay jox xanaa sultaan teg na ci juróom juróomi fanweeri ci ko waxee woon damay ñëw di ko contrôlé incha allah xool ndax mi ngi dox wala dox ndax pour jàppale yàlla ngeen ko mën. dina ko monsieur le maire sultaan moo leen dolli juróomi junni. alma kay alma leen baa si alma la maire bii nag Maada aussi dama koy sant <laughs> dama ko bëggoon a décorer parce kii suñu xarit la suñu jabar suñu lépp la waaw dem naa keroog nee naa ko bëgg boo meree rek bu boo tax ma bëggoon koo bi décoration bu ndaw madame le waaw d'accord madame le maire yow yaay l'infatigable le vice-président du conseil départemental vient de décorer euh, madame le maire Mada Diallo euh, ñu ngi daje euh,

président dama bëgg nit ñi fi ne ñu